asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm léegi moom leer na nañ lépp lu jublu ci wàllu couvre-feu bi dañu koy yokk ci diirub juróom ñetti fan démb la ko joriñ ku ñu dénk wàllu kaaraange réew mi di Antoine Félix Diome daal di koy xamle ca fële nga xam ne moom mooy RTS autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne moom moom di Antoine Félix Diome daal di ne xamle ne couvre-feu beeg état d'urgence mi ngi tàmbale ci juróom-benn fan ci weeru te nag mi ngi waroon a jeex démb ci guddi kon nag tey jii lañu njiitu Sénégal di Macky Sall fas yéene nag dëggal lépp lu jublu ci wàllu coppite yi nga xam ne indi nañu ko euh, ci loi 1969 léegi ngir fexe nag ba couvre-feu bi wëy dañoo daal di soññ gouverneur bu Dakar ak tamit bu Thiès ngir ñu daal di jël ay arrêté ngir dëggal li ni mel culikay bii di Sud Quotidien nekkoon léegi nañu jàpp ne couvre-feu bi moom dinañu ko daal di wéyal ci diirub juróom ñetti fan culikay bii di laa laas nekkoon njiitu réewum Sénégal Macky Sall jëlul moom décision boppam dafa bàyyi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy gouverneur yu Dakar ak jël li ni mel wanteew culikaay bi di réew mi quotidien dafa mel ni daan ni mbir yi leeru ci seeni bopp ndaxte ñoom dañoo gis daal ni am na pëccxoo cafouillage juridique bu am ci wàll gi ni mel te dafa mel ni nag ne kii di maître Ousmane Seye ma ngi koy dëggal ndaxte moom daal ne gis ne gouverneur yu Dakar ak yu Thiès seen i arrêté yi nga xam ne nag dañu koo jël jëmale ko ci wàllu couvre-feu bi mënuñu kaa dëggal tant que njiitu réew mi xaatimul lépp lu jublu ci wàllu loi bu bees bi loolu nag moom moo tax ba maître Ousmane Seye di xamle ci biir culikaay bi di 24 nag nekkoon décision yooyu méngoowul ak suñu wàllu constitution te it ma ngay soññ ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitee ngir ñu daal di respecter lépp lu jublu euh, ci àq ak yelleefu nit ñi ak tamit wàllu constitution bi autolikaay bi di Vox Populi moom it daal di nay gis démb joriñ ñu dénk wàllu kaarange réew mi moom dafa mel ni ne dafa réer ci wàllu date yi ndaxte daal la mu doon wax nag foofu nga xam ne moom mooy ca RTS dafa mel ni daal ne dafa jaxasoo woon lii quotidien ñoom it daal dinañuy gis ne ñaareelu couvre-feu bi nga xam ne nag moom la ñu dëggal fii ci Dakar ak tamit ci diwaanu Thiès jaaru ci yoon ndaxte assemblée national dëggalu ko rax ci dolli sax loi bu bees bi njiitu réew mi ba léegi promulgué wu ko kon kay ñi nga xam ne ñoom ñooy gouverneurs yi mënuñoo jël benn décision rax ci dolli tamit couvre-feu boobu ñoom gisuñu si nag benn njëriñ ndaxte lan moo leen di wax ne virus bi guddi dong lay circuler ba sax ñuy jël nag lépp lu jublu ci wàllu couvre-feu li am ba des autolikaay bi di ngi ñuy xamal ne mbas bi di covid 19 ma ngay wéy di euh, mi ndaxte daal di limu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy am feebar bi saa su ne ña ngay yokku même su fekkente ne sax am na ab couvre-feu boo xam ne daal dinañu ko fiy dëggal ñi nga xam ne it ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkeen autolikaay bi di direct news di xamle ne ñoom it ña ngay wéy di bëri kon nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitee war nañoo jël matuwaay yi war xiroo ak ngaayoon am na ca parti socialiste ndaxte autolikaay bi di les échos mi ngi ñi xamal ne keroog ba Aminata Mbengue Ndiaye jëlee décision ne koppar ga ñuy séddalee ñenn ci nga xam ne nag ñoom ñoo bokk ci biir parti bi daal daf koy dakkal am na ñoo xam ne nag ñoo ngi koy yëkk ay kàddu yu mel ni xeme tey ji sax autolikaay bi di les échos ngi ñee xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu ku mel ni Mamadou Mbodj Diouf moom nag daal dina gis ne la Aminata Mbengue Ndiaye def daal du dëgg di libération moo ñuy xamal dañu ko delloowaat euh, kaso dina jàkkaarloowaat tey ji ak euh, procureur wante suñu naatango yi di ñu xamal ne ministère public dafa bëgg sax ubbi lu ñuy tuddee information judiciaire te tey jii la ñu fas yéene tànn kan moo nar a nekk magistrat instructeur bi ñii di ay avocat wu Boubacar Sèye daal di gis ne noonu nga xam ne nag noonu la ministère public di doxalee lañ ca bëgg lenn la moom mooy tëj gémmiñu seen client bi te ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg soxna yi njiitu réew mi di Marième Faye Sall démba mi ngi doon waxtaan ak suñu natango yu nekk ca RTS autolikaay bi di Les Échos ne dafa mel ni nag ne Marième Faye Sall dafa buggoon a wax ndaxte moom daal di ne xamle ne juróom-ñetti at ñi nii daal munul woon yëkkati ay kàddoom ndaxte buggul woon gêner njiitu réew mi moom la ñu kon moom moo war a wax loolu nag moom moo taxoon moom mu noppi woon Marième Faye Sall démb ci waxtaan gi mu seq ak suñu natango yi ñëwaat na ci benn rumeur ñu doon ruumanaat jëmale ko ci moom di xam ne daal ne dafa tàggalikoo ak sagoom mu daal di xam le ne li ni sax moom ak sénégalais yëpp ko yëgandoo wante li am ba des moom mooy ne mi ngi sant yàlla te it mi ngi ñaan mbas bi nga xam ne nag moom mooy covid 19 daal di fiy jóge ba faaw ñu wax ci mbirum Diary Sow ndax teew ci likaay bii di tribune mi ngi ñuy xamal ne bu ñu sukkandikoo Casamance kii di Diary Sow moom de fa mu nekk moom moo fa téye boppam maanaam daal dafa daal di fëx moom dafa daw te li ni mel daf ko liñatu seetantal ko bu baax a baax laata nag mu koy def autolikaay bii di tribune di ñu xamal ne enquêteur ya nekk ca France ñoom ginnaaw ba ñu liñatoo mbir ba li ni mel la ñu daal di fësal ci lu jublu ci ki nga xam ne da doon wax ne yéeyaay ab yonent la Baba Labé autolikaay bii di tribune mi ngi ñuy xamal ne démb de ca kaso bu Kolda la fanaan jàpp nañu ko ak moom ñoom da di xaar ah doy na waar métti na ndaxte la ñu leen di toppee mi ngi jublu ci wàllu euh, enlèvement par fraude sàkku tamit ay xale yu ndaw loolu tamit ñu daal di koy dugal ci wàllu ak de pédophilie daal di ci yokk tamit ne ñoom dañoo daal di seq ak ay xale yu ndaw lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li gën a fës ci biir ëcculikaay yi ñu leen di ñaanaan njeextalu bës ak jàmm mesdames et messieurs bonjour que tout le monde se le tienne pour a été et d'hier ici à Dakar et à Thiès. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diom, qui l'a annoncé hier. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que le ministre de l'Intérieur a expliqué que cette mesure a été prise en attendant la promulgation de la loi, un troisième régime qui vise à gérer les catastrophes naturelles et sanitaires. Par conséquent, il a révélé que les gouverneurs de Dakar et de Thiès ont déjà reçu des instructions respect de la mesure car le président de la République va promulguer cette loi aujourd'hui. Donc retenons que concernant l'état d'urgence, le couvre est maintenu à Dakar et à Thiès pour huit jours. Pour nos confrères du quotidien LAS, Macky refile la patate chaude à son administration. Cependant, pour nos confrères du journal Réumi Quotidien, on nous parle de cafouillage. Nos confrères de Vox Populi d'ajouter que concernant la fin du couvre lié à l'état d'urgence, le délai, le pouvoir se perd dans les délais. Maître Ousmane Sey déclare dans le journal 24 heures que concernant donc la prolongation du couvre-feu, il y a un vide juridique. Et dès lors, il se pose la question de savoir comment les gouverneurs peuvent instaurer un couvre-feu sans état d'urgence alors que la nouvelle loi n'est pas promulguée. Pour lui, ce n'est pas conforme ni à la loi ni à la Constitution. Donc, il faut respecter les droits des personnes et la Constitution. les gouverneurs ne peuvent pas instaurer le couvre-feu. Donc, nos confrères du journal Li Quotidien, eux aussi, sont d'accord pour dire que concernant ce second couvre-feu à Dakar et Thiès, c'est totalement illégal parce que l'Assemblée nationale n'a pas prorogé et la nouvelle loi pas encore promulguée aucune base légale pour les arrêtés des gouverneurs de euh, Dakar et de Thiès. L'instauration du second couvre-feu est aussi illégitime car comment comprendre

au Parti socialiste et l'affaire de l'appui à des socialistes continue de secouer le parti de Senghor. Nos confrères du journal Les Échos nous indiquent les déballages continuent et chacun y va avec ses déclarations. Samba Diao Anne est monté au créneau pour démonter Abdoulaye Gallo Diallo qui accuse son mentor de lui avoir coupé son appui à cause de ses prises de position. Le pro Aminata Mbengue Ndiaye réfute les dites accusations avant de révéler que Gallo Diallo a reçu de son mariage, ce que dément formellement Gallo Diao. Boubacar Seye, le président de l'ONG Horizon sans frontières, a bénéficié d'un retour de parquet. Le ministère public compte demander l'ouverture d'une information judiciaire. Ce sont nos confrères de Libération qui nous le font savoir. Et nos confrères d'ajouter que c'est sans doute aujourd'hui que le magistrat instructeur sera désigné. Et selon les avocats de Boubacar Seye, cette démarche du avec nos confrères de la RTS, nos confrères du journal Les Échos, qui ont suivi l'interview, nous indique que Mariam Faisal a déclaré que Mariam Faisal avait envie de parler car elle n'a pas parlé depuis huit ans parce qu'elle ne voulait pas gêner le président de la République. C'est lui qui a été élu et elle devait faire profil bas. Elle s'est aussi prononcée sur ces rumeurs qui faisaient état qu'elle était devenue folle et Mariam Faisal au même titre que les Dieu, qu'il en soit Autrement, elle demande aussi aux Sénégalais de prier pour que la pandémie puisse vite quitter notre pays et le monde. Dans le journal Tribune, nos confrères nous donnent des nouvelles de l'affaire Diary et la piste de la fugue a été confirmée par les enquêteurs français. Donc retenons avec nos confrères que la brillante étudiante sénégalaise Diary a disparu volontairement pour des motifs encore non éclaircis. C'est en tout cas la conclusion à laquelle première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. Nos confrères du journal critique trouvent que Babalabé, le prophète de Kolda, a goûté aux fruits interdits car il a été déféré hier pour séquestration, enlèvement par fraude, viol sur mineur de 13 ans, acte de pédophilie, consommation de mariage sur mineur. Bref, le prophète et ses disciples risquent gros. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.